waa soppee mbay sàppar sàppar maa leen doon ñaan lu oto wax dëgg yàlla Serigne Touba jox na ma ko waaw gan gi daal ci màggal gi la ñëw ndeysaan ci dara dara màggal gi daal la ñëwaale kon ñaanal leen ma muy xalaf xalafi jàmm rek nag ci barkeb Serigne Touba ak a dara dara si jàmm sama soppe yi laa ko bëgg a wan ban xam ni mbay mi doon ñaan oto sunu borom jox na ko ko gis ngeen. na ŋaatar ŋaatari jàmm rek te lépp ànd ak jàmm sedd guy barkab Serigne Touba numéro 4 Ahmadou waaw sun borom daal tàggale na maag comaaytu ci areek puusal ma toog ak yaa ngi may jogek yooyu yëpp Serigne Touba tàggale na maag moom kon jërë ngeen jëf koo gis daal nga ñaanal ma rek barkab Serigne Touba jërë ngeen jëf lépp soppe ya nag lépp soppe yi la ak am na jàmm yi képp